sifflé ndaysaan combat spécial bi dox ci diggante Bécaye ak Nokia Bécaye moo la woon ginnaaw nga jàkkaar lool ñaari xale yaa ngi noonu Bécaye Nokia Bécaye am na lu muy tàllal ci suuf ndeysaan supporter Bécaye yee ngi ne tek arbitre bi ngi laaj Bécaye laaj na ko laaj na Nokia arbitre bi sifflé na mbokk yi Bécaye ak Nokia Nokia nga jàkkaar lool Bécaye moo la woon ginnaaw ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu mooy combat spécial bi suñu noppee ci combat bi Dame seen ak Tonnerre ñooy sëgg Nokia làmbam bu mujj defet la am ndaysaan diggantam ak Guiro Seras ndaysaan mu nekk làmb joo xamante ne làmb ju neex la làmb joo xamante ni ñoom ñaar ku ci nekk njariñ la ci yow combat déclenchement la Nokia ndaysaan ak Bécaye Bécaye ndaanaan la moom it ndam la mu jéem fii ndaysaan ñu ngi noonu di lewaatoo combat bi dina am xeex wala déet Bécaye Nokia ndaysaan Bécaye Nokia ah déet ndeke Alioune Seye fàtte naa ak Mor Kankang bu ñu ñoo ciy tegu de ah ñooy bëre spécial bi jaadu na Mor Kankang ak Alioune Seye ñooy grand combat ah ah <laughs> damaa yaakaaroon. Dame Sène ak Tonnerre ñooy grand combat bi ah waa làmb ngi ni combat bi njëkk régulariser CNG keneen ku ñëw ci ginnaawam ngay topp jaadu na waaye kon mun naa ni Assane Ndiaye ñaari grand combat la tëgg rek wala Fallou Ndiaye ñaari grand combat la tëgg bu jëlee. amaatee ree ci neex la rek amaatee ree ci neex la. waaw waaw. ñaari grand combat ci gën takkusaan. loolu mooy xaw ma benn bal jam ñaari. benn xeer bu jam ñaari picc. benn xeer bu jam ñaari picc. <laughs> amateur de perte ju tey. maa la wax loolu baa ji nañ démb. mais laala ci lii perte ñu ah yor naa ci de. loolu gis ñaar sax. waaw kon sa xaar ma jox sa caméraman mu laal. Ah, waaw waaw baax na ci. jege nañ saako yi arbitre bi woowaat na leen. arbitre bi woo na leen ci géew arbitre bi sifflé waat na Ibrahima Nokia Bécaye Nokia ngeen jàkkaarloo Bécaye moo la woon ginnaaw baax mu nekk làmb joo xamante ne ñoom ñaar ñëpp combat bi combat déclenchement la ci ñoom no ko yaa bu ci génnee mën na koo yóbbu fu sore sore ci wàllu làmb Bécaye bu ci amee ndam tay làmb ji mën na koo yóbbu fu sore sore no ko yaa jiital tànk càmmoñ loolooy garde normal Bécaye jiital tànk càmmoñ loolay garde normal ñoom ñaar bu ñu xeexee dina neex bu ñu bëree dina neex Nokia baral na lewtoo bi daa bëgg a dem cokkaas na Nokia cokkaas na Bécaye ngi koy déglu stade bi bëri na ay gunóor ci nawet lañ ne dañuy naaw des fois dal kaw yaram bi waaye mënul ñàkk nu ko yaa begaay nu ko yaa begaay cokkaas na ndaysaan nu ko yaa begaay begaay ngi dox ci kaw nu ko yaa mu fay fekk Bécaye Nokia Bécaye dagg na lewtoo bi demee na la rataraal mu ngay ñëw daw na song ko Nokia dóor na mu daw génn Bécaye Nokia combat bu nar a garaaw Nokia ngi dox ci koom Nokia Bécaye ci sa tànk yi la jëm piqué nga ca kaw xel maa nga ci suuf dafay fekk uppercut wala déet daw na jëli na ko dama la waxoon dañuy xeex waaw waaw xeex ba commencé na bëre baaxum góor la <laughs> ay waay kurpañ waay daw na jëli tànk ba dama la waxoon Nokia Bécaye Bécaye a ngi dox ci koom wala Nokia a ngi dox ci koom mu ngi dox ci koom ma ngay cokkaas dañuy génn saaku yi dina génn daw na jëli ko Nokia takk na ko Nokia takk na Bécaye takk na ko takk na ko mu ngi koy rogganti laay laay la laa Bécaye daan na Nokia Bécaye daan na Nokia Nokia lu daan moo takk takk bi production ndeysaan Kalu Biti Kalu Biti oh waay Bécaye waay waay Bécaye daan na waay xoolal ma supporteru oh waay lamba gi Bécaye waay ndeysaan xale laa xale laa damaa liggéey wax naa la ko bu yàgg baaxee woon liggéey du mag kii mag la maa gën doon xale fuuf ci biir bëre bi damay gis saa la dàqee da ngay reculer piège boo bëggoon mu dugg ci wala la piège moo woon moo war indi expérience ma jëri ko si loolu xale laa ma tege ma liis sant yàlla daal ma nekk xale rek nekk ngir saa ñaam dafa daw takku ma ma baax a ma baax a yaram ma xam ne xam naa ne li ma suba mënu ma si daan dama baax ba mu ba muy ma rot sama tànk yàlla baax ma jox ponkal yi ah boole ma seetee ma wala fu ma jëm boole ma seetee parcelle ma wala fu ma jëm boole ma seetee parcelle ma wala fu ma jëm maa ko ëpp doole fuuf. dégguma la maa ko ëpp doole fuuf ban dalante laa ko maa ko doole. su ma ko duma daan ko. gisuma su ma doole. dama ko gën a liggéey. ñoo leen seet sama organ xamul ma rek waaw.